asalaamualeykum wa rahmatullah bokki réew mi noo ngi leen di nuyu kàddu yi ñu yëkkati ñi ngi ko teg ci ndigalul sëriñ Abdul Fattah mi sëriñ bi jox kàddoom sëriñ bi nee na mi ngi sant ñépp di gërëm ñépp ndax ba muy woote dane woon bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn te seetlu na ñaar ba ñetti fan yii ba ci suba dégg na ana waa dëkk sangam bu nekk kon mel na ni woote bi nit ñi wuy si woon lañ ko ci ñu ngi leen ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm di ñaanal mbooleem fu waay jóge woon buy dellu mu dellu ci jàmm te fekk fa jàmm di ñaanit bis bi yàlla bu mu doon suñ mujj daje ñu daje ko fi ay ati at di sant bu baax nag ak Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko teg ci loxol ak Cheikh Mouhamadul Bachir mii nga xam ne moo ko fi nekkal di ko xamal ne kero ba Cheikh Sidil Muxtaar delloo mu ànd ak njaboot gi fekk ko fa mu ko fekk nee na la mu ko waxoon mi ngi koy gën di feddali saa su ne muy nekk ci peggam di déglu ay ndigalam di ko ndokkeel bu baaxit ci liggéey bu am solo bii nga xam ne sotti sotti te la fan yu néew ci ginnaaw la nee na mi ngi koy xamalaat ne dana ko fas yéene ànd ak moom fu mu ko fa joxañ rek dana fa jëm mi ngi koy seral mbooloom mi yépp di dénk nag ñi nga xam ne dañu ko jox ab sañsañ ci seen bopp jébbalu weesuwul joxe ab sañ-sañ ci sa bopp ki nga jox ab ci sa bopp bu dul jébbalu it nit dana ko def am na ci hôpitaux yi nit dana ñëw ci hôpital nettali ma ko kenn kum xamut garayam xamut fàllayam ne ko ne ma sëriñ dindil mbubb mi ma dindi ko mu ne ma defeenul ma defeenu mu ne ma saqatal ma saqat walla mu ne ma jaaxaanal ma jaaxaan te loolu kenn nit ku ñuul nangulu ko keneen kon nit dana dem hôpital jébbale boppam ñi nga xam ne dañoo ñëw jébbal ko seen bopp jox ko ab sañ ci seen bopp dafa am lu ko war seen digganteeg ñoom ndax koo xam ne boo ko wooyee mu dikk féeg ne woo ko dellu du dem soo ne ko demal du dikkaat mukk te ne woo ko dikkal jaanam wàcc na moom nag li ko war digganteem ak moom mooy ku ñëw ci bis bu ni mel ñi bañ ko ko jàppee xumbute kese kese koo bëgg a gis gis ko foo bëgg a dem dem fa ci jàmm rek waaye day jël benn xadis bu gàtt boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko doon dénk nañ ma jégal ci baatu gàtt gi ndax ka ñëwoon ci suñu ne ko dañoo bëgg nga wutal ñu turu xasida ci turu daayira ci xasida yi suñu blaat ne ma seet ma seet mu ne ko wutal wutal nu nag ci tur yu mag yi xasida yu mag yi suñu blaat ne ko demal wutal demal jël it ma gu ndaw ba ma xàmmee leen maa ngi jégalu gàtt gi seydina abdullahi ibn abbas radiallahu anhuma abbas moom yi firndeel na baat bi may wax léegi ci jox nit ab sañsañ ci sa bopp jox ko cër ba nga ko war a jox nee nañ ko yàgg yonent bi ku mag te moo way jur yonent bi ñoo bokk mu ne leen moo ma mag fuuf waaye nag maa ko jëkk a ñëw moom mag fuuf waaye maa ko jëkk ñëw nag abdullah ibn abbas moomu radiallahu anhuma nee na yonent bi doon na dénk waaye mu fekke ko mu ne ko juróom a ngi nii yoo xam ne yaa ngi ànd ak moom ci sa dund mu jàkkaarloog juróom na nga fexe ba juróom yu jëkk yi bu bu la ca juróom yi mujj a fekk kooku ne ko ba nag ban mu ne ko jamono yi ngay doon ndaw xamal ne ak ndaw màggata nga koy dàq dana ko jot na nga fexe ba loo war def ci sag ndaw nga def ko balaa màggata dikk ngay rëccu newoon na ko it wér goo gis wér dañ koy dàq dana ko jàpp saa boo amee wér jaamoo ko yàlla balaa wéradee dikk ndax am na ñu seen wéradi wéradi yaram la ak am ñoo xam ne wéradi xol la yàlla ñu ci yàlla ne ko it koo gis mu yor lu ne gàññ ñàkk ba ne tucc mi ngi koy daq dana ko jot loola dana dem bàyyi ko fa wala mu dem bàyyi fa loola kon jamono bi nga ko yoree gaawal def ci li nga ci war a def bala moo tàggu yow wala wala muy tàggu yow nee na ko jamono bi nga amee jotit fexeel ba balaa ñàkk a jot a dikk loo war a def nga def ko waaye ba ca mujj mooy yaa ngi dund saa su nekk ñu nettali la diw bàyyi ko na fi am na kilifa gu baax goo xam ne saa boo ko masaa a dégg danaan yàlla nañ ko yàgg dégg feeg yaa ngi koy dégg yaa ngi dund waaye tuumaalal sa bopp na yaa cay topp loo war def def ko te kat gannaaw faatu sëñ Tuubaa nee na kese la bind na ci Masaalikul Jinaan nañuy faatu ñëpp soo leen woowoon tey téléphone xam naa numéro bu gudd la war a doon wala bu gàtt lool lu ngeen bëgg duñ la wax gis kii walla kaa lañ lay wax mooy dellu si àdduna lu mu néew néew bañ mën fay def lu baax ndax xam na njariñul lu baax la may jariñ bis ba suñu borom di wax naan fa kashafna anka xitaaka fa basaruka yawma hadid dara umpatu leen kon nee na yonent bee ko wax kuy dund na nga gaaw balaa faatu dikk ndax dund faatanga koy dàq ko jot innal mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaqikum kàddu yooyu la sëriñ bi waxoon ne nañ ko jottali ñi nga xam ne sañ na leen a digal ñu jox ko sañ-sañ seen bopp ñu yóbbaale ko fuñ dem ñu jottali ko fa ñi nga xam ne it joxuñ ko sañ-sañ ki seen bopp ba digleeg tere war dox seen diggante it ku soxla mën na koo jël asalaamaaleykum wa rahmatullah